alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baale yàlla la waayu maam ba yàlla la faalo yàlla la maam ba yàlla la Ibrahima faalo yàlla la maam ba yàlla la imaam Ibrahima faalo Ibrahima Fallu

la لا لا لا إله إلا الله القدس لا إله إلا لا لا إله يا رسول لا إله إلا لا لا إله ما يندم بكوس لا إله إلا لا لا إله رسول الله لا إله إلا لا لا إله ما يندم بكوس لا إله إلا لا لا إله رسول الله لا إله إلا لا ما يندم بكوس لا إله إلا لا إله إلا لا إله بين الدم بكوسي لا إله إلا لا لا إله سلمام لا إله إلا لا لا بين الدم بكوسي لا إله إلا لا لا إله يا رسول مام لا إله إلا لا لا بين الدم بكوسي لا إله sunu maam laa ilaha illa Allah baay leen dem ba koosi laa لا إله لا إله لا إله إلا لا لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا إله إلا لا إلا أنا لا إله لا لا لا إله إلا أنا لا إله لا لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا إله إلا أنا لا إله أنا لا إله إلا أنا لا إله لا لا لا إله إلا أنا لا إله لا إله إلا أنا إله إلا لا إله لا لا لا إله إلا لا لا إله لا لا إله إلا timis mu lal wasifa suñ paree julli géxe suñ paree ñëw ci kër gi ñu bolem dëkk bi seen reer yi yëpp ci suñ kër lañ ko daan taaj fañ daan taaj ba hëtt bi rek reer ba ne cere ganar lañ ci daan def sa baay ba xoko Medina dikk ne baye ma yónni ne ne dafay xan gan yu baxee ko bitim rew na ngeen ma xuutal ganar ñi julli tàkkusaan julli timis wasifa julli gexe ñu ñëw ci kër gi ma ngi mbooleem mbooleem dëkk bi séeréer yi yëpp ñoo di ko taaj booba su reer mara na ci ndeyjoorom bi daanu ma sooy de ñu taaj ndab mu dippi ñu lépp mu def ci rek daal mu ne toxalal fële def ko ndab yi ba gannaaw gi mu xam ne nag ñoom ñëpp moom lañ def mu ne waaw yéen man ngeen ay boole tolloo rek bàyyi maqaama bàyyi dama laaj ganaar ngeen dama torreyal ganaar mag ñi dal di rëmm ne ko wallaahi faal suba da nga xam ne dañ la dañ lay jox ganaar de waaye keroog si cere si meew su tuuti ca la reer ñetti ñetti ñetti sépaat yu rombut ko ca taxal bañ taxaloon démb moo moo moo fii te billaahi dana fii dana dem dana la fekk lépp. dana takk dana dem El Hadj Ibrahima Fall ndaw guddi ga see da réussir ndaw guddi ga am jàpp ndaw guddi ga am xéwal ndaw guddi naataange ndaw guddi guddi jàmm ji guddi dërëm ko jënd xalal du ko jënd kattan du ko jënd xam sax mu ko jënd gii gii guddi mm. guddi gi El Hadj Ibrahima Fall El Hadj ma ma xamoon. dama jógee ko fii ne faa ne wuti certificat fekk alaaji Abdoulaye moo digal Abdou Gaye ne ko mbooleem gune yi doon jànge mosoon dafa leen certificat ndax ñu mën a liggéey ma jógee ko fii dem Medina ba ma jëkkee ba timis ma dem kër Abdou Gaye ba ma ko waxee fa ne ma yow de amoo sens alaaji Abdoulaye santoon na ma ko waaye léegi xaaye na ma ne na daal nañ ba ma ne ko waaw mu ne ma ne ko suma sens a ci néew ma jógee ko fa keroog keroog dikk fanaan si ci dëkk bi toog ba guddi ma génn ñu ne ma yow dag dégg certificat bi ngay laaj soo demee ci Alaaji Ibra Fall da ko am ma dikk wax ko Nidia Mbaye ci kër Mouad Ba ne ko nag dama xamul xadd yeeg moo tax ñi mu may dem benn téeméer képp laa am mu ne mu bu ñu julli tusubaar foofu la ñuy jaari ñu julli tusubaar ci jumaa ji dikk fekk ko ci néegam mu ngi toog ci piliyaanam bi jublu penku di di jàng alxuraan ma dikk wax ko génn gi ba ma ko waxee mu mu daal di fekk mu nga amee nu yar yi mu dindi ko nii teg ci kawam ne ma ah, yow sa génn gi moo sob yow man lu ma génn ay boole yow ma ne ko ah, waaw génn la de mu ne waaw baax na dégg naa la ba keroog bañ julli xat tàkkusaan Abdou Gaye xebal ndaw ne ko demal ci jim ni ko certificat ba mu doon wax bu xamee ñeenti téeméer dama ko indil ah, bi ma julli timis jox naa ko ko xëy dem liggéeyi Kawlax bi ma ñëwaat ci timis fekk naa sarsaf ko ci kër gi ko fu ba alaaj bi rafaa ko foqati ci loxol yàlla jox ma ko ma am certificat mhm. nen damay dem service de mine pour pour pour def mhm. ñetti fan su ma xëyee midi la mhm. su ma dikkee fekk fekk mu fees ndax fukki nii rek la ñuy jël par bis bala maa xeg si fekk naa rang yi yëpp téeméeri nit yoonu ñeneen teel wax dama julli gi euh, fajar rek jaar ci bàyyi te du ma taal taalal suma loxo yi dañu bàyyi sa kii laa sof soxla tey rek aku suma yoon dikk ci xay gi fekk fi benn watiir ma dugg ci ñett ñaari nit laa fekk ca kii ba ma ma ñettee leen macha allah bi xëy si hmm. nit ñi di def rek rek rek mu ne waaw lii mooy lan daqal ne kii bi waa ji daqal gaañ ñëpp ñu génn ca biti ñu dàq ñu génn ca biti ca hôpital ba mu ne naka xooleen ñu dikk ñetti nit laa fa ñaari nit laa fa fekkoon man ñettee leen bañ dellu rang juróom-ñaari nit ma gannaaw li ma ëpp li ma li ma li ma jiital ëpp ñaar fukk wala ëpp na sax juróom fukk ba yi rëj rëj nit ñi de ba bawuñ ko waa ji ne kii directeur bi ne waa ji demal dalee ji ca gannaaw gannaaw duñ duñ duñ toog ñu dikk ca gannaaw juróom-ñaari nit ma juróom-ñettee leen ñu defal ma ma génn fi ma taxaw mu teg ci ñaari nit mu ne fukki mu génn taxaw ne waaw yow waa ji mu kii yow loolu liggéeyee nii tey mu ne ko yaa ko sant ma ne ko bàyyi la ko sant kenn santul la ko bàyyi la ko sant. Ah, macha allah alhamdulilah. sa baay moo noonu ma. jim ma ne ko naa mu ne ma man alaaji Ibra Faam ñi mu humaay fanaan ci dëkkab Tiijaan bu bu bu dul wasiiru alaaji Ibra Faam ma leen mu di yéen ñi le fokkati leen yëf yi ci loxol ñi ko xamee jox ñu ko suñ nawet bii xaw na yoon wu ñu jubuut waaye nañ ko jubbanti na ci jaam yàlla yi jàpp mu jubbantiku na ci jaam yàlla yi jàpp mu jubbantiku nañ ko teg ci yoon waaye lépp ci ñun la faal ñaan leen ci yàlla la seen bàyyi xamee na ngi ci yéen la neexoon ci bàyyi ngi ci doom maa ngi leen di gërëm ngërmande loo xam ne xamul xàpp maa ngay sant yàlla xin nag sant yàlla goo xam ne ndax la ma doon def defal sa baay su ma jékkee ba su ma doom de ko def ci suma kanam ma fekkee ko sant yàlla rek laa di def maa ngay sant yàlla ba ca kanam yàlla ak ab faal nañ jubbante ji jamono ji nañ ñaanal jaami yàlla yi nañ jubbante jamono ji jamono ji yàqu na te jaami yàlla rek a mën a ko jegal yan na yàlla dimbali ñu yan na yàlla dimbali ñu yan na yàlla dimbali ñu ndimbal ci saahir ak ci baatin yan na yaral njaboot gi yan na yàlla njaboot gi yal na yàlla wuñ ci njaboot gi yal na yàlla wuñ ci njaboot gi ci barke Baye El Hadj Ibra Fall barke Cheikh na ma Tidiane Serif radiyallahu anhu ah ñu ngay sant yàlla waaye yoon wa seen baay tege woon ca ngeen tegu tax na lépp lu ma yaakaaroon ci seen baay yaakaar naa ko ci yéen nañ jubbanti jamono ji nañ ko jubbanti. Jami yalla yi nañ ñaan yet ji dana jop jamono ji jubbandiku fi mu tegu du yomb te jubadi rek ñu ko teg jubadi rek ñu ko billahi wallahi jubadi rek a ñu teg lii yal nañu yàlla jubbanti jami yalla yi nañ ñaan yalla te bu ñaané yalla yal yalla nangul yu yaaram yalla yalla yàlla suñ mbiri sahir ak suñ mbiri batin ma ngi leen de gërem ba ci kanam yàlla ak yonentam ba ci seen kanam bàyyi ala jibrafal bu doon nelaw it xeexu na tey mu gën a ñoom mu jànkoon ko laa ilaaha illallaah mu nga jékki xolam dana sedd xolam dana dolli sedd nag ndax jaami yàlla yi ko lànkal fi mu ne duñ ko ba ba pencam yàlla yàlla dana leen may kàttan dana leen may wërsëg dana leen may xéewal dana leen may jàmm juñ ko defee faal njaga yaaram nañ ci ñu jubbanti jamono ji yal na yàlla dimbali dimbalal saahir ak la baatin jere gen jëf ju ànd ak wàcc dik ya di xew ngeen teew te ñun ñoo leen waroon da fekk si talib fay sa siyaar mo wara war a siyaar ji sëriñam waaye siyaar sol mbubb dik de ko du bokk mom siyaara lolu ci seen ak mbaax rek la yalla yalla dimbali ñu yalla yalla dimbali ñu yalla yalla dimbali ñu ya dimbalal sahir ak la batil ya barke alquran بارك اللهم صل على سيدنا محمد الله السلام illallah la ilaha illallah Bye. maam Ibra Faal jarama maam Ibra sopp nañ la ngir yónneen maam Ibra Faal jarama Allah ya Allah Allah Allah ya Allah Allah ya Allah Allah Allah ya Allah ألا يا ألا مام إبراهيم ألا يا ألا ألا ألا يا ألا ألا يا ألا ألا ألا يا ألا الله يا الله ألا ألا يا الله يا الله يا الله ألا ألا يا الله الله يا الله الله الله يا الله باي الله يا الله الله عليه يا الله الله يا الله الله الله يا الله يا الله الله الله يا الله الله يا الله الله ngir Yàlla Maam Ibra Faal jarama yàlla maam Ibra Faal la jaram wóolu nañ la ngir yónnee maam Ibra ko ngir yàlla maam Ibra la Faal jaram yónnee ka jàllo ko bay Muxtaar ka jàllo boy bay Muxtaar ka jàllo boy sampu bay Muxtaar ka jàllo boy bay Muxtaar bëgg ko Baye Mokhtar ka jàll Baye Jaara xoolul nañ ko Baye Mokhtar ka jàll mukhtar ka jàll ba bay jaram ko na la ngir yàlla ka jàll bay jaram bolu na la ngir yàlla ka jàll bay jaram ko na ko bay jim cam ka jàll bay jaram ko na ko bay jim cam ka jàll bay jaram ko na ko bay jim cam ka jàll bay jaram ko na ko bay jim tuuti ka jàll bay jaram baay ku nekk la baay Osmaan ka faal ka jàll bay jara topp naa ko seex bay faal ka jàll bay jara njaay sant nañ la maam Ibra ajaban budul koosi maa ngi laajte kuy Baay Ñas foofu la yàlla jagle Ibra Faali maam Ibra foofu la yàlla jagle ñu Baay Ibra Faali maam Ibra foofu la ñuy suubu roy bu xayri yokka ibnu xëraar ibu juuf boole way la maam Ibra ibnu xëraar ibu juuf wayla wayla mam ibra jullu wayi sa way wi wode mam ibra faali sante nañ la fal kuusi sante leen ko mam ibra sante nañ ibra faali sante nañ ko mam ibra jullu wayi sa way wi wode mam ibra faali yoomu baay le tan la di baay sante nañ ko a lacce kuy baay ñes moom la yàlla jagle ñu baay sante nañ ko mam ibra moom sant nañ la maam Ibra moom la yàlla jagle ñu baay sant nañ ko maam Ibra sant nañ la maam Ibra bëgg nañ la maam Ibra wóolu nañ la maam Ibra maam Ibra Fall suufi yanke baay ada ada ada ada maam Ibra Fall suufi yanke baay billahi baay ñu ngi lay namoo ñu ngi lay namoo di la sago maam Ibra Fall ñu ngi lay namoo الله لا لا لا الله لا لا لا sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoo sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoo sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoo ñu ngi lay ndamoo di la sago billahi ba ñu ngi lay ndamoo sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoo sëriñ bi ñoo ngi lay ndamoo ñu ngi lay ndamoo di la sago baay billahi ba ñu ngi lay ndamoo allah ala ala ala allah ala ala ala allah ala ala ala ma ibra fa ñu lay nangu ala ala ala ala ma ibra fa lu koy nangu ala ala ala ala ma ibra fa lu lay nangu ñu lay nangu di la sago baay billahi baay ñu lay nangu ala ala ala ala ala ala ala ala ala